cheikh Mouhamadul Aaxib Ibrahim Niass mi nga xam ne moom lañ fekk si tey fii fii ci kër Assane place la boo xam ne yàgg na fee ñëw waa place bi bëgg ko moom itam mu bëgg leen te yàlla rekk tax waxtu wu jógee këram tukki fii ci biir Saalum fii la ëpp ca tukki yooya la ëpp ca fii la jëm ci kër Assane mu ne ñu ngi leen di ndokkeel tey nag ji nga xam ci jumaa ji nga xam ne moom lañ ubbi si tey ndax yàlla wax na ci alquran ne. ñi nga xam ne ñooy tabax jumaay yàlla. ñi nga yàlla yi. mooy ñi gëm yàlla. mooy gëm dikk ak bés penc. gëm taxawal julli juróom joxe asaka. taxawal julli juróom joxe asaka. te ragal luñ ragaluñ dara lu mooy yàlla. loolu mën nañoo wax ne firi ay mesaanam ci place bi wax ne. diri na mesaanam. ci place bi ci place tey. ak ñi dëkkee place ci place bi. te ñooñu itam. itam. ñooy ñi jub. tabaxal yàlla. ku tabaxal yàlla. ab néeg. na tuuti ba em ni fu tax di boofee. na ay nenam. yàlla dana la tabaxal néeg fa moom ca aljanna. yàlla yontu yàlla Muhammad moo wax loolu. mu ne fa la ñu jógee muy Medina. zaawiya ba fa bàyyi njëkk a taxawal. zaawiya ba fa bàyyi njëkk a taxawal. ñeenti mètre la woon. ci guddaay. yaatoo juróomi mètre. te bañ demee ba àgg ca xadd ko. amuñ woon nuñ ko xëddee. ndax jamono mayewu ko woon. mu ne kenn ci muqaddam yi ñëw ci bàyyi. na ko bàyyi sa noon yi dinañ la reede. na ko bàyyi say noon danañ la reede. mu ne ko ci lan. mu ne ko ci lan. mu ne ko danañ mu ne ko ndax dañuy wax ne dañ doon tabax ab zaawiya. jàkka ba àgg ci xëdd amoo loo xëddee. ci xëdd ko te amoo loo xëddee. te léegi tey taw bi ñëw daane te léegi taw bi ñëw mën naa daane li nga tabaxoon. ban bàkkaar laa ci bàyyi na ko loolu man bàkk ban bàkkaar laa ci war a amee. man yàlla mooy sama borom. man yàlla mooy sama borom. nee na nañ ko jaamu. nee na nañ ko jaamu. man maa ngi koy jaamu. nee nañ ko tabaxal néeg. nee na nañ ko tabaxal néeg. ma tabax néeg bi mu seetaan ma ba taw bi ñëw daaneel bi mu àgg fii ba mu seetaan ma ba taw bi ñëw daane ko. loolu man aw ma ci dara loo xam ne war na ma ci mu ne ci ëllëg sa ab taalube jógee koo fu sori indil leen mbooleem lañ soxla pour xëddee ko place booba xëdd jàkka ja mu ne loolu mooy saawiya ba nga xam ne moo jëkk fële ca Medina 1937 1937 ba muy ba muy aji màkka mu jox bàyyi si sa xaalif. na ko nag ma moolal su ma dëppee ci ak gii damaa bëgg tabax jumaa. ba mu dëppee ci aj ga itam mu def loolu. 1958. 1958. mu beesal jumaa ji ca tabax bee ngeen gis ji ca tabax bële ñu gis ca Medina ca ña fa dem. nga xam ne yaatoo na. ñetti junney mètre. ñetti junney ak ñetti téeméer. ak ñaar fukki mètre ak ñeenti mètre. kon nekkal yàlla rek kon nekkal yàlla rek mooy li am solo. soo nekkalee yàlla ci sa jëmm. soo nekkalee yàlla ci sa jëmm. yàlla nekkal la nekk. ci jëmmam ji nga xam ne mu nga fu ne. nekkalee yàlla ci sa am-am bu soo nekkalee yàlla itam ci sa am-am boo xam ne dafa am limite. yàlla nekkal la ci am-amam bi yàlla nekkal la ci am-amam ba nga benn limite. soo ko nekkalee ci sa man-man. soo ko nekkalee ci sa man-man. am na loo man am na loo tële. na loo man am na loo tële. yàlla nekkal la ci man-manam bi nga xam dara. nekkal la ci man-manam bi nga xam te ko am yàlla am nga lépp. ku ñàkk yàlla. ku ñàkk yàlla. amoo dara. juma jàkka jële nga xam ne ñaar fukki mètre rek la yaatoo woon. jàkka jële nga xam ne ñaar fukki mètre rek la yaatoo woon. tey mu nekk ñetti junne ak ñetti téeméer ak ñaar ñetti junne mètre. ak ñaar fukki mètre ak ñeenti mètre. loolu nekkal yàlla rek moo ko jur. yàlla bu baax. kon ñoo ngi sant yàlla bu baax. ci jumaa ji. ci jumaa ji. ñoo ngi sant yàlla itam. ngi sant yàlla itam. di ndokkeel sëriñ Aaxibu. di ndokkeel ci man-man bi ko yàlla mayagum. ci man-man bi ko ba mu def fi lii mu fi def. te ñoo ngi séentu ne. te fan yii ci kanam. fan barab bi dana gën a taaru. te dana gën a rafet. dana gën a rafet itam. ndax lépp ay naam la. ndax te tiijaan bu gëm. te tiijaan bu gëm. wala tiijaan bu dëggu. lépp lu bëgg. na nekk ca gannaaw aras yàlla. na nekk ca gannaaw sax. yàlla dana ko ci yàlla dana ko ko wàcceel ci kaw suuf. mu ne te ñun xam nañ ne bokk na ci ay bëgg-bëggam. du jumaa rek. waaye ay école am ca kanam. waaye ay école am ca kanam. lépp xam ne ñuy wax Medina. lépp loo xam ne ñu koy wax fële ci Medina. lu ñuy wax Medina Medina City. ñuy wax Medina City. am na fa. am na foofa. sëñ aaxi bu fas na yéena yàlla amal ko fii. yàlla amal ko fii. ngir lan. ngir lan. ngir jaam yi nga xam ne. ngir jaam yi nga xam ne itam ñoo di ko dundal ci julli juróom di ko dundal itam ci julli di ko dundal itam ci wasifa al ko dundal ci di ko dundal ci jàng addisu yonent bi sallallahu alayhi wa di ko dundal ci wirda bépp alxuraan buñ fi jàng bépp julli guñ fi jullee. wasifa wuñ fi def. su suñ fi def. wirda wuñ fi def. ñoo ngi ñaan yàlla mu nangu ko. te su ko nangoo ko ful te kem baaxam nga yaa tey. la ci jumaa jële mën nañ koo wax fii mu ne bàyyi waxoon na bàyyam ne ko na nga wax nit ñi ne képp ku nekk ci dëkk bi képp ku nekk ci dëkk bi te su jumaa ji ootee ñu gis la te su jumaa ji ootee ñu gis la suñ lalee malaanam wasifa wi gis la suñ gisee suñ lalee malaanam wasifa wi gis la suñuy jàng ñu gis la suñuy jàng ñu gis la suñuy liggéey liggéey bu jëm ci pay bi ñu gis la suñuy liggéey liggéey bi ñu gis la ci kooku mi ngi koy xamal ne. mu ne kooku mi ngi koy xamal ne. dëkkandooroon na ci àddina dëkkandooroon na ci àllaaxira. dëkk fii ci àddina dëkkandooroon na ëllëg ci àllaaxira. te moom wóor na ko ne dëkkandooroon dafay taxe. te moom wóor na ko ne dafay taxe. ku fi nekk nag te nekkoo ci loolu. mu ngi lay xamal ne moom dëkkut yow fii dëkkut yow itam fële. kon. nekk dëkkandoo yi bàyyi. nekk dëkkandoo yi bàyyi. mën naa nekk ci barab bii. naa nekk ci barab bii. ndax sëriñ aaxibu mii. bàyyi la uutu ci place bii. bàyyi la uutu ci place bii. lépp lu ko nit defal. lépp lu bàyyi nga ko defal. lu bàyyi wax itam. mooy taxaw ci place mooy taxaw ci place bi julli juróom. dundal leen place bi julli juróom. bokk na ci hadis bi nga xam ne sëriñ bi jàng na ko léegi ci xutba gi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne juróom ba julli juróom. julli juróom ba julli juróom. ajjuma ba ajjuma. ajjuma ba ajjuma. weeru koor ba weeru koor. weeru koor ba weeru koor. dañuy kaafara la nekk seen diggante. dañuy kaafara la nekk ci diggante. ay bakkaar. ci ay bakkaar. suñ teetee bakkaar yu mag. suñ teetee nag bakkaar yu mag ya. loolu jar na dundal place bi. wax na itam. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi ngeen dundal place bi. ca nam waree. kenn amut ngant nag. ñeent fukk ndax ñeent fukk. ñooy dëkkandoo. ñooy dëkkandoo. ay ñooy dëkkandoori juma. Ibnu Abbas laaj nañ ko. laaj nañ ko. ñan ñooy dëkkandoori jàkka. ñan ñooy dëkkandoori jàkka. mu ne feeg sa diggante kër ak jàkka ja. mun ak jàkka ja ñeent fukki kër a nga fa. kon ca jumaa jumaa jooja ca nga war a jullee. kon ca jumaa jooja ca nga a jullee. soo amul ngant. soo amul ngant. yonent bi sallallahu alayhi wa ne. yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne. laa salaata li jaari l mu ne ku dëkk ak jàkka. mu ne ku dëkk sa julli du wér lu lu mooy nga am ngant. sa julli du wér mukk lu mooy ca jàkka ja lu dul da ngaa am ngant. kon nag kon ñi fi dëkkee. yéen ñi fi dëkkee. na ngeen dundal jàkka ji. na ngeen dundal jàkka ji. sëriñ bii ngeen. sëriñ bii ngeen jiital. topp ci koom topp ci koom. muy sëriñ Mouhamadul Aaxib Ibrahim Niass. ku ci ñëw Medina ci yéen. ku ci ñëw Medina ci yéen. julli juróom yëpp su amul ngant. julli juróom yëpp su amul ngant. ca jàkka ja la koy defee. mooy place bi itam. kon place bi itam. na ngeen ko dundalee noonu. Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu wax na ne. mandargaay saxaabaam. mandargaay saxaabaam. mooy teewee géewu wasifa. mooy teewee géewu wasifa. lépp lu ngeen mën di def. lépp lu ngeen man di def. lépp lu ngeen mën di liggéey. lépp lu ngeen mën di liggéey. na ngeen def ci seeni waxtu. na ngeen def ci xam ne da ngeen koy toog. minute yoo ne da ngeen koy toog. jàng ci wasifa. jàng ci wasifa. ndax ba ngay jël wirdo wi kenn forcé wu la. ndax ba ngay jël wirdo kenn forcé wu la ci. wax nañ la ay charte. wax nga nangu ko. nga nangu sartu yooyu. gannaaw nangu ko woon nga ko. loolu daf laa war. loolu daf laa war. nettali nañ ci xutba gi itam. nettali nañ ci xutba gi itam. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wax ci xutbaam. wax ci xutbaam. ne yéen nit ñi. ne na ngeen tuub jëm ci yàlla. na ngeen tuub jëm ci yàlla. te na ngeen njëkkalante liggéey yu liggéey bu baax. jëf ju baax. maanaam jëf ju baax. na ngeen tuub jëm ci yàlla balaa dee a dikk. na ngeen tuub jëm ci yàlla balaa dee a dikk. te danañ la nangul sa tuub. te danañ la nangul sa tuub. feeg nekkoo di xarxarle. le nekkoo di xarxarle. loolu sax dafa sori. loolu léegi bi nga wéree. léegi bi nga ak sa xel. ànd sam xel. ànd ak sa mën-mën. ànd ak sa mën-mën. ànd ak sa am-am ak am. ànd sa am-am nu mën a am. tuubal rek dellu ci dellu ci yàlla. alquran wax na wa tuub jëm ci yàlla. alquran wax na ngeen ci yàlla ñeen ñi gëm. ndax ngeen texe. kon. ñun ñëpp. nañ beesal suñu tuub jëm ci yàlla. nañ beesal suñu tuub jëm ci yàlla. dellu ci yàlla itam. te lu ci nit gàtt gàtt àll wa. te lu ci nit gàtt gàtt àll wa. ñu di la wax ne. sarti tuub. sarti tuub. mooy rëccu. mooy ak dogu. ak dogu. ne la nga la la woon nga di ko def ci lu bon. dootoo ko def mukk li des ci sa dund. li des ci sa dund. mu ne na ngeen njëkkalante jëf ju baax. mu ne na ngeen njëkkalante jëf ju baax. bala ngeen a soxloo yeneen. bala ngeen a soxloo yeneen. ndax léeg-léeg xat-xati àddina. xat-xati àddina dab la. waxtu wi nga xam ne. waxtu wi nga xam ne. yaa ngi ci am xafal ak yaatu. yaa ngi ci am xafal ak yaatu. ci say waxtu. ci say waxtu. loo ci mën a jubale ci yàlla rek def ko. ci mën a jubale ci yàlla def ko. mu ne na nga sa diggante ak sa borom. na nga diggante ak sa borom. ci bëri ci bëri gooy tudd sa borom. na nga itam ak bëri gooy asaka. na bari bëri itam ak bëri asaka. bëri gooy génn ay sarax. ci lu feeñ ak ci lu nëbbu. ci lu feeñ ak lu nëbbu. na ngeen xam nag. na xam nag. yàlla farataal na ci yéen ajjuma. yàlla farataal na ci yéen bi mooy wax. mu ci taxawaayam booba. ci bés bii. ci bés bii. ci at mii. ci at mii. yàlla. ba pencam yàlla. képp koo xam ne. képp koo xam ne. bàyyi nga julli ajjuma. moo xam ci suma dund wala gannaaw suma dee. moo xam dundam moom yonent bi sallallahu faatoom. fekk yaa ngi amee ilimaan ju maandu. fekk ilimaan ju maandu. sax. du dëng. sax. ngir oyofal mbiri ajjuma. ajjuma. wala weddi ko. wala weddi ko. yàlla bu yàlla boole sa mbir. yàlla bu yàlla boole sa mbir. yàlla bu yàlla barkeel sa mbir. yàlla bu yàlla barkeel sa mbir. su jullee yàlla bu yàlla nangu julli ga. su bu yàlla nangu julli ga. su génnee asaka yàlla bu yàlla nangu asaka ja. su yàlla bu yàlla nangu asaka ja. jëfi topp jum def yàlla bu yàlla bu ko yàlla nangu. su ajee yàlla bu ko yàlla nangu. su ajee itam yàlla bu ko yàlla nangu. ba ba muy tuubee. ba ba muy tuubee. ku tuub nag yàlla nangu sa tuub. yàlla nangu sa tuub. mu ne feeg yéen a ngi koy man. mu ne feeg yéen koy man. ci kaw wér. ci kaw wér. am waxtu woo ko defee itam. am waxtu woo ko defee itam. lépp lu ñuy def ci jumaa ji. lépp def ci jumaa ji. bu mu leen faat. bu mu julli bu mu leen faat. suñuy julli bu mu leen faat. naafila bu mu leen faat. suñuy naafila bu mu leen faat. suñuy jàng alxuraan bu mu leen faat. suñuy jàng alxuraan bu mu leen faat. suñuy wirda suñuy wasifa bu mu leen faat. ak bu ñuy wasifa bu mu leen faat. loolu yëpp. loolu yëpp. feeg yéen a ngi ànd ak seeni xel. a ngi ànd ak seeni bu leen dara ci yooyu faat. ndax loolu rek moo fi indi jumaa ji. sëriñ Aaxe bu xamoon ne su taxawalee jumaa ji du ngeen mu ne su sëriñ Aaxe bu xamoon ne su taxawee jumaa ji du ngeen ko dundalee noonu. kon du ko fi def. Ibnu Abbas wax na ne. Ibnu Abbas wax na ne. yonent yàlla Muhammad sallallahu mu ne. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne. ku bàyyi ñetti ajjuma. ku bàyyi ñetti ajjuma. yu toftaloo yu na lislaam ca gannaawi gannaawam. kon nag. kon nag. na ngeen toppatoo li nga xam ne moom la yàlla waral ci yéen. na ngeen toppatoo li nga xam ne moom la yàlla waral ci yéen. ndax Baay radiyallahu anhu lu mu wax. man araada an yakuna maay fal yasluk tariqi fi l aqwali wal afaal mu ne képp koo xam ne. mu ne képp koo xam ne. dangaa bëgg a nekk ak man. dangaa bëgg a nekk ak moom Baay. dangaa bëgg a ànd ak man. dangaa bëgg a ànd ak moom. na nga soobu yoon wa nga xam ne man moom laa ci moom laa nekk. na nga soobu yoon wa nga xam ne moom Baay ma nga ca. ci wax. ci wax. ak ci jëf. topp yàlla. topp yàlla. topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. seen i ndigal ba def ko. topp seeni ndigal ba def ko. bàyyi seen tere yëpp. bàyyi seen tere yëpp. te waxtu wu nekk. te waxtu wu nekk. ngay gën a góorgóorlu. ngay a góorgóorlu. nga xam ne daf lay gën a jegal yàlla. mu ne lii moom la ñuy ànd ak Baye Niass. képp ku oote nag ne moom nga àndat. képp ku oote nag ne moom nga te lii mu wax ni nekkoo ci. te lii mu wax yow nekkoo ci loolu. wala ñu gis la ngay bëtt sariya bi di def lu la neex. ñu gis la ngay bëtt bi def lu la neex. faale woon ndigal yàlla yi faale faale woon ndigali yàlla yi faale woo ndigali yonent bi wa sallam. faale woo itam seeni tere. mu ne mu ngi seedaloo ñëpp. mu ne mu ngi seedaloo ñëpp moom bàyyi. gannaaw bu mu seedaloo yàlla. gannaaw bu mu seedaloo yàlla. ne kooku moom amut moom benn affaire. ne moom dara itam. kon nag. yàlla nañu yàlla boole dimbale yaa rabbi te ngi ci siraatal mustaqim bi nga xam ne moom la bàyyi rëddoon moom la bàyyi rëddoon moom la fi bàyyi ñii mu fi bàyyi itam di ci aw di ci teete nit ñi di ci aw di ci teete nit ñi yàlla nañu yàlla teg ci yoon woowu te bàyyi ñu ci yàlla teg ci yoon woowu te bàyyi ñu ci saxal ñu ci itam ba bés ba ñuy dajeeg moom ñu am ngërëmal baay am ngërëmal Seexu Tijaan am ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te buñ ko amee danañ am ngërëmal yàlla lu màgg la yàlla ñu yàlla boole defal loolu yaa rabbi oote bii ñu oote tey ubbi fi jumaa ji. ak pour siyaare sëriñ bi. ak pour siyaare bi. képp ku fi teew. ku fi ak ku bëggoon a teew. a teew. te mënoo teew. te mënoo teew. ñoo ngi ñaan yàlla. aajo boo mën di am. aajo boo lu ci doonul mooy yàlla. lu ci doonul mooy yàlla. doonul lu yàq ak bopp. yàlla yàlla faj aajo boobu yaa rabbi. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. barke Cheikhu Tidiane radiyallahu taala anhu. ci barke Baye radiyallahu taala anhu. jumaa ji itam jumaa ji itam. ku ci def sa dërëm. ku ci def sa benn dërëm. ku ci def sa dërëm. ku ci def sa dërëm. ku ci def sa yëngatu. ku ci def sa yëngatu. ci def sa doole. ku ci def sa doole. yal na la ko yàlla nangul. na la ko yàlla nangul. te ful ko ca kem baaxam nga yaara bi. sooy def lu baax ba dajeeg yàlla. def lu baax ba dajeeg yàlla. yàlla yàlla dana la fay. ba nga lim bi yépp defuma ko woon ci lu baax. naka noonu itam. naka noonu itam. kuy def safaan. kuy def ba dajeeg boromam. ba dajeeg boromam. boromam dana ko isaab dana ko mbugal. ko isaab dana ko mbigal mbugal. su ko baalut. su ko baalut. ba mu wax ne lii yépp defuma ko woon ci lu bon. ba mu wax ne lii yépp defuma ko woon ci lu bon. kon nag nañ góorgóorlu ci jëf yu baax yooyu. nopp lu amagut. nopp lu amagut. nopp lu daal ma ngay am. nopp daal ma ngay am. buñ demee ca bàmmeel ya. buñ demee ca Alhaji euh, Abdoulaye radiyallahu Ibrahim radiyallahu wax na ne. wax na ne. wax na nga noppalu. na nga noppalu. mu ne dafa na ko na diggante asamaan ak suuf. diggante asamaan ak suuf. gisuma fi fu nit di war a noppaloo. gisuma fi fenn fu di war a noppaloo. su noppaloo amee daal. su noppaloo amee daal. mooy suñ demee ca bàmmeel. mooy suñ demee ca bàmmeel ya. lañ fay tëddi. lañ fay tëddi. ku bëgg a noppalu loolu doy na noppalu. ku a noppalu loolu doy na noppalu googu nag. noppalu googu nag. ku ko bëgg. ku ko bëgg. fii nga koy liggéeyalee sa bopp. fii nga koy liggéeyalee sa bopp. da ngay nelaw rek ba àgg ca. nga xam ne da ngay nelaw rek ba àgg ca. doonul ne da ngay nelaw ba àgg ca. doonul ne da ngay nelaw ba àgg ca. doonul ne itam da ngay yaafus ba àgg ca. doonul ne itam da ngay yaafus ba àgg ca. topp saali yi ne yi. topp saali yi ne yi. seen ndigal ak seen i tere nga bàyyi ko. seen i ndigal nga topp ko seen i tere nga bàyyi ko. ba dajeeg yàlla. ba dajeeg yàlla. yàlla éegal la ca seeni daraja. yàlla éegal la ca seeni daraja. ndax benn benn saxaaba saxaaba yi wax na ne. ndax benn saxaaba yi wax na ne. mu ne daan xaar rek ba guddi rek. mu ne daf daan xaar ba rek. mu dem yurnu yonent mu dem yurnu yonent bi wa sallam dal di delluwaat këram. bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lii nag. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam koy laaj ne ko lii nag. mu ne ko waxtu wu ma fàttalikoo. mu ko waxtu wu ma fàttalikoo. ne léegi dee ñëw ñun ñëpp ñu dee. ne léegi dee ñëw ñu dee. dem aljanna. dem aljanna. ñu éegal la ca daraja ya gën a kowe. ñu éegal la ca daraja ya gën a kowe. ñun ñu nekk ci daraja yoo xam ne xëy na duñ mën a agsi ci yow. ñun ñu ci daraja yoo na duñ mën a agsi ca yow. su ma xalaatee loolu rek. su ma xalaatee loolu rek. ne xaaral ma dem xool yonent bi balaa balaa gis ne xaaral ma dem xooli yonent bi balaa. ko di jafe. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa nit ku nekk. ne ko nit ku nekk yaa ka nga sopp. yéen ay dëkk ëllëg ca àllaaxira. anas ki riwaayu hadis bi. anas ki riwaayu hadis bi. mu ne mosu ñoo kontaan ci lislaam. gannaaw bu ñu doonee ay jullit. mu ne mosu bu ñu doonee ay jullit. kem suñ kontaan bés ba yonent bi waxee ne almaru maa man ahab. xem seen kontaan kere bi nga xamee ne yonent bi wax na ne nit ku nekk yàgg nga bëgg yéen a dëkk xira kon nag ñu ngi sax ci yoon woowu nga xam ne moom la ñu tëralal nga xam ne mooy yoonu yonent bi ndax Baay radiyallahu anhu wax na ne su yonent bi dox maa nga ca topp su yonent bi dox maa nga ca topp su taxawee du ma seqi benn jéego su taxawee dootuma seqi benn jéego njiit lu mel noonu na ku ko am njiit lu mel noonu na ku ko am na la yóor na yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sa njiit alhamdulilahi rabbil alamin la ci loolu. gannaaw siyaare bii ñuy def tey. ñuy def tey. yal na ko yàlla nangu. na ko yàlla nangu. te siyaara mooy ziyaada. te siyaara mooy ziyaada. mooy mooy dolleeku. ak càng. ak càng. loolu yëpp siyaara nit ak yàlla dana la ko may. ñoo ngi ñaan yàlla. ñu ñëw ci siyaara bi yàlla nangu siyaara bi dafa leen ko muy ziyaada dafa leen ko muy ziyaada dooleeku ci zaahir dooleeku ci saahir dooleeku ci baatin ci baatin dafa leen ko itam ak càng dafa leen ak càng fuñ mën di nekk fuñ mën di nekk ñu tiim fa seeni nawle ñu tiim fa seeni yàlla yëkkati leen bañ tiim seeni nawle leen bañ tiim seeni nawle mu téyel leen boppam mu téyel leen boppam làq leen fu leen fa nga xam ne yàq àggu fa yàlla mën na loolu na ko defal ñi di ñëw ci ziyaara bi. yal na ko defal ñi ñëw ci ziyaara bi yëpp ndax nit jóg na. di ziyaara ji mbokkam jullitam. di ziyaara ji mbokkam jullitam. yàlla hebal benn malaaka. yàlla hebal benn malaaka. mu dogandu ko ca kaw yoon wa. mu dogandu ko ca kaw foo jëm. mu ne ci dëkk bii jëm. mu ne bi ci daraja yoo xam ne xëy na duñ mën a agsi ca yow su ma xalaatee loolu rek ne xaaral ma dem xooli yonent bi balaa gis ko di jafe yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ne ko nit ku nekk yaa ka nga sot yéenay dëkk ëllëg ca àllaaxira anas ki riwaayu hadis bi mu ne mosuñoo kontaan ci lislaam gannaaw bu ñu doonee ay jullit kem suñ kontaan bés ba yonent bi waxee ne almaru maa man xam kem seen kontaan kere bi nga xamee ne yonent bi wax na ne nit ku nekk yàq nga bëgg yéen a dëkkal la ci àllaaxira kon nag ñu ngi sax ci yoon woowu nga xam ne moom la ñu tëralal ñu ngi sax ci yoon woowu nga la ñu tëralal mooy yoonu yonent bi ndax Baay radiyallahu anhu wax na ne su yónnent bi dox maa nga ca topp su yónnent bi dox maa nga ca topp su taxawee du ma seq benn jéego su taxawee dootuma seq benn jéego mu ne daf daan xaar ba guddi rek mu dem yónni yónnent bi rek delluwaat këram mu dem yónni yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam dal di delluwaat këram yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lii nag yónnent yàlla moom dal di koy laaj ne ko lii mu ne ko waxtu wu ma fàttalikoo na ngi dee ñëw ñun ñëpp ngi yéen a dëkk ëllëg ca àllaaxira kon nag ñu ngi sax ci yoon woowu nga xam ne moom la ñu tëralal nga xam ne mooy yoonu yonent bi ndax Baay radiyallaahu anhu wax na ne su yonent bi dox maa nga ca topp su taxawee dootuma seqi benn jéego njiit lu mel noonu nag ku ko am na la yóor na yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sa njiit alhamdulilahi rabbil alamin ci loolu gannaaw siyaare bii ñuy def tey yal na ko yàlla nangu te siyaara mooy siyaada mooy dolleeku wala mooy siyaada ak càng ak càng yëpp siyaare nit ak yàlla dana la ko may. loolu yëpp siyaare nit ak dana la ko may.